El Hadji Ahmed Aidara bismillah suuxu bato eh. la jolaa day ma ne am na fukki ak juróom benn day allahu akbar mel ni lu ñu fàtte directeur fa ne de bato boobee kay kenn mënu koo nag laa la wax dée lu tolloo junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett mille huit cent cinquante inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax askan wa mer riir wutali kon pale boobee eh, waaw Abdoulaye Wade daal di leen xamal ne lu nji nguur gi ci boppam mooy njaak waaye ne kon Mamadou Diatta day ah nee na dama caa ubbi bitig waaye bitig balaa mujj daanu MD ne dama taa ñaari jabar waaye ba xaalis ba jeexee day la jigéen ña dem ba ma ne man day dama ci doon def commerce waaw wuti jëkkër jëkkër ca mujj gi ne muy daal di dem ba sobi li fukki at juróom benn day ginnaaw ba suux ba tala joolaa boobee amee ah daal ba léegi ni lée la ñuy dund ci naxar ñoo ko xam ma ne la Idrissa Diallo day waaw nee na gis nga farata li ñu woon école gi waaw ma ne la guddi gu bët setagul ci boppam ci la jàngalekat yi élèves ak gouvernement bi nekk incertitude dëgg sax ma la waa kisam si day waaw nee nañu engagement di digg yi nga xam ne ne gouvernement bi jëloon na ko day juróomi weer ca ginnaaw waaw ba nii ñuy àddoon ni la France daal di xidde ci dara ba dara booloo jeex laa la wax looloy dëgg lii dëgg day 24 heures bi de waaw nee na gouvernement bi ci boppam moo tale moo mënul respecté généralu ministère éducation nationale waaw nee na bi day mais wane na yéeneem wane ngir wut ab saafara ci la ñu signé woon tribune yéene kaay ne en tout ca poste day waaw xeexa fa am démb laa la wax libération yéene kaay ne coow waar ci wàllum suuf Mamad Ba DG approvi wàllum njuuj njaaj day escroquerie kon lañ koy toppee les ko yéene kaay Sénégal Soudan day éliminatoire coupe d'Afrique waaw ñaari semaine des ca mat sa ba waaye stade Léopold Sédar Senghor day demal xool ñax mën na mu mel comme toolu pataas pompiteer pataas ay paxee la terrain ba def booru stade ni xas ndox mu xeeñ ma moom kenn waxaalewu li mbiram laa la wax tey dama la jooy te politiciens yi waaw ma ne parrainage wala ñu dal dee Abdoulaye Baldé ci tribune yéene kaay yi waaw daal dinay sàkku nag ci OFNAC ak kër yi nga xam ne kon ñoom lañ dénk wàllu jàmbar ji ay corps de contrôle nguur gi lée ñu daal di yëkkati ay daan lal ko ci ndoodu Macky Sall ak waa këram laa la wax ndax wàllum guerre di corruption la ñuy def nit yi Abdoulaye Baldé wax du samay kàddu dee ay kàddu 24 heures tey nee na MDS bu docteur Babacar Diop waaw nee nañu Idrissa Seck la ñu àndal ci élection présidentielle ba Babacar Diop ak ñamu àndal waaw nee na léegi farata la xeetu demande sociale la ngir jëlee fi Macky Sall mi laa la wax nga xam wax même day ma ngay dajale na kon njabootam ga la daloon kan te moo di dañ fada bukki ba ko ca maatoon waaw lay bañ mu dal ko Sud Quotidien ne présidentielle 2019 yi day ah boo saaganee nag Sénégal danañu fi gis loo xam ne day maarité taali ma ne la ñaari parti yi nga xam ne kon ñoo gën a ngand fii ci Sénégal gi bokk ci ay élection 1978 ak léegi nii ah. boo sàgganee ñaar ñoo ñee duñu am candidat bu dee côté parti socialiste day Oustaz Tanor Dieng waaw leeral na lépp yàgg na jéebalu na tamit day ci Macky Sall mi lé waaye waa PDS day ko sàgganee ñoom tamit eh, élection présidentielle bi ma ne duñ ca bokk maa rëdd Italie ah. te ñoom nee nañu kon amuñu plan B Karim Wade rek point kese te Karim Wade moomee article l bu code électoral bi day da koo éliminé maa la ko wax sur xanaa xamal leen ñaari fan nga xam ne maître Madické Niang waxtaan na ko kon ak maître Abdoulaye Wade day ñi yaakaaroon ne jàmm dana ca juddu waaw boo ñu dem toog seen waxtaan wa jurul dara dara dara dara lu neex maa candidat di ma ne ci terrain bi ba mu saf eh waay samba réew mi quotidien waa kilifa diine moom le pouvoir religieux ah mënoon mbaa dinañ ko mënati seen kàddu ci wàllum politique bi looloo jaralaay Dakar Times ne réalisation pont Farafenni be Transgambienne ba waaw Macky Sall de ndekete projet Abdoulaye Wade la jëlati maar day daal ma nga xam ne moo jógee nag ca banque africaine de développement moo ko wane montage financier bi Abdoulaye a ne parce que boo bëggee dégg dëgg na gis nga Macky Sall moom boo ko génnee centre international Abdou Diouf jam ñaajo bee waaw Macky Sall amul ay projet Macky amul benn projet projet wu parti limitage bi day Sud Quotidien nee na tey la tey day la bis la gi la ay mbokam bu yeboo ñu jóg de Walf Fadjri yéene kaay ne de Alaaji Malick kay la ay mbokam war a jóg maa la ko boo sàggane ñu sànk ko wala ñu faat ko de wala ñu dugal ko kaso ardey taali taali gardien dee inna lillahi wa inna ilayhi gardien Malick Gakou bi ci la décédé gaañu boobu benn ñaar alaaji Malick Gakou day temps yee waaw daal di ko fii jiir ay mbirum jigéen ak yooyee xoolal ma lii ñu dem ca gi tey boo ñu Malick Gakou dugal ko ci kaso bi le waaw parce que Karim Wade ak Khalifa Sall mi ñu tëjoon ba pare la dañ ko doon sànq de ñett ci weer lay toll Malick Gakou accidenté ak oto bi te oto boobu rek mooy gaare ci buntu kër gi tali ba la ilaha illallah wal fajiri ne ko dama ne guddi tol nii li muy dund eh. maartey waaye dana waxee de ma la xoolal diggante Sénégal ak Pologne seexatuñ dara daanaka gi dañ faa dem ubbi fa ama sall ubbi fa bureau économique dénk ko jombaas jaw Malick ko gars dañ koy persécuté di ko def yu doy waar les ko yéene ne premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne day wàccee na Aline Badara Cissé attaqué na ABC xamal na ko ne ko monsieur le médiateur yaa nekkul ko artiste yii ñuy bëgg lim waaw Macky Sall la ñu àndal de Mame Ngor Diazaka la àndal salaam Diallo Demba Guissé Adam Soy Yves Niang Moussa Diouf Malick Diabou Seck Aline Mbaye Nder Kéba Seck Ousmane Seck maire Diaby Ngoné Ndiaye Guèwel nee nañu dañu taxawal kuréel goo xam ne day ñoom artistes yi xaatandoo dóorandoo la ñu koy tuddee <laughs> ca yàlla loolu man duma ci débat dama naan la tëjal